Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki sénégal diaspora ñoo ci wat bëgg waxtaan ak yeen ci lu gatt rek ci euh, euh, thème de actualité yi nga xamni mo xew ci euh bokk yi toujours damay déglu information ba mu jàgg ma xam ne man toujours histoire daf may jox dëgg rek euh, xam nga Macky Sall dafa war dem Touba samedi na day inauguré ji hôpital ba nekk Touba bañ fa doon tabax maa ngi dégg ñuy wax niveau 3 ak ay yu mën a mënta wax nga xam ne maanaam euh, xam nga ku xam ku xamul hôpital nag wax dëgg yàlla loo ko tabaxal rek donte dara nekkul ci biir sax moom day jàpp ne kii moom mi ngi doxal waaye dëgg-dëgg bu ngeen xamoon ab hôpital dëgg da ngeen xam ne lee dara te et puis hôpital bi sax daa pareegul hôpital bi dafa pareegul lii lépp ay politique la. ay politique politique moo ko lal ndax bëgg occasion bu mu demee Touba te amul dara lu mën a teg seeni loxo waaye nag lii de gàcce la gàcce dëgg la gàcce dëgg la Macky Sall Macky Sall wax naa ko bu benn du ñaare am nga am nga problème bu rëy rëy ak saw askan am na benn waay bu may dégg muy woote ci Walfadjri euh, ci wax sa xalaat ko mën caajaay njaaxaanaay caajaay naan voilà la réalité ak gouvernement kenn xex ak mom wala ngay bëgg xex ak mom jaxanaay jaxanaay da nga joom jaxanaay da nga joom da nga waroon ne Macky Sall kenn xex ak saw askan wala ngay bëgg xex ak saw askan parce que do jël ndam nga xeexoon ak seen askan ñepp ñen ña wàcce nañu leen ak seen simis yu yu yu su yu ñeneen ña ña nga ca kaso ya di sol ay ay kilo bon euh Macky Sall def nga fi tourner foo dem ñu yoo xoola nga war a ñëw Touba yow boo demee gannaaw yow dëkk bi ngay bëgg a dem ñi moo faa dem ci sa volonté bopp te défendre ruñ la kilifa dëkk lii xam nga lu mu la war a jàngal da ngaa war a démissionné parce que ab gouvernement prérogative bi mu am cim réewam nga xam ne ni euh, maanaam euh, ab gouvernement prérogative bi mu am cim réew nga xam ne bu seqee ak population ba normal nga xam ne bépp sànce buñ fa départ dañuy am résultat fooy dem dañ lay dañ lay teeru ni ñi téro buur wa légui nak so démé so démé ba ba yow ñi mu la dem fenn wala bo dem ñu ñu ñu ñu xeer la ah la ilaha illallah muhammadur rasul est ce que lolu du échec xam nga maanaam président afrique même modou dimissioné président afrique afrique de l'ouest nak la wax way fi jox nañ fi ultimatum ñaari président de la république ñom ñep dañu dimissioné te seen mandat jéxul parce que lutax moy moy def nañ ay scandale yo xamni ni dañ leen a jox est Jacob Suma mi ci mi ngi dem ak ñëw ci til euh, libre nañ ko ndax wér gu ngi dem til bi naar ak ñëw euh, euh, ko joxoon ultimatum mu démissionné est mën naa am Sénégal est-ce que ñun suñ démocratie bi ñuy wax bi seet ñu toog ci plateau télévision yi naan leen démocratie lan mooy démocratie est-ce que sénégalais xam na lan mooy démocratie ba léegi amu fa bu leen nax seen bopp doole crache moo fa am doole crache Macky Sall nag yow sa ñëw gannaaw suba bii xam nga ne du neex parce que yow yow wóor na la ne gannaaw dañ lay défendre yow yow man bu doon mën a dama koy bàyyi bu doon mën a dama koy bàyyi parce que lu tax ma di ko bàyyi mooy wóor na ma ne gannaaw man dañ may défendre ma doog a ma doog a ñemee ñemee dem ah wax dëgg yàlla kon xam nga ne xam nga ne xam nga ne ma ne dëkk booy dem ñu naan la ñu naan dimbale leen rek bu leen ko yuuxoo bu leen ko humilier ah wax dëgg yàlla ci président de la république la de. échec bu rëy la échec bu rëy la te tay ji ni bo demé Kër Ñang ña ca ndox ma nga dem Daamaatu ña ca ndox ma nga dem daru khudus ak am na côté yoo xam ne ca ndox ma wa deug la nit ñi nak nit ñi nak manam lu mëna xew ci aduna kenn ku nak li ngay yek yow dong ko yek ya? bo xiifee ak ah, ko ma ko mëna andal bo àndal du yek na xiif nga boo buñ ko wut wax ko ne ko dee nga du ko yek ya? kon nag kon nag moo tax nag nit ñi nag danañ mos a jël seen responsabilité di xeexal xeex bi seen bopp di ko xeexal seen bopp te am naa xalaat ne Sénégal mun a dox mukk te kenn ku nekk jëloo sa propre responsabilité parce que képp ku yaakaar ne dafa am kuy régler problème mu Sénégal bàyyi ñi ci des ñëpp a war a jël problème mu Sénégal régler ko une bonne fois pour toutes gis nga suñ problème ak Macky Sall buñ ko se buñ ko lijjantee ni ñu ko war a lijjantee nga xam ne ni na ko ne. force reste à la loi mais force tamit bu ñu ko wax reste à la mooy da aw askanam ay askanam kenn mënut a wax kenn mënut a mën a wax bañ bañ torturer aw askanam déedéet parce que askan wi dañoo am àq ju am mooy manifester démb li xew Guy Guy Marius Sagna ni ñu ko toroxal ci mbedd Ndakaar yooyu billaahi wallaahi taalaahi met na ma ba fa kanam yàlla dama ci amul pexe rek parce que Guy Marius Sagna xeexalu boppam bu ko neexoon mu tëdd weer wu dee mu jot salaire am te dem ko. mais askanu Sénégal bi muy xeexal est-ce que ñoom xam nañ ne moom lañ ñoom lay xeexal askanu Sénégal ngir yàlla jàppale leen seen bopp jàppale leen Guy Marius Sagna ak ak ak euh, France France dégage gis ngeen France googu moo la toroxal gis nga Guy Marius Sagna li muy wax wallaahi bu leen jàpp ne waxu politique see la wala waxi dara la wala waxi dëgg la leen wax xulil aqu min rabbikum fa man saa afal yominu wa man saa afal yëkmiru ngeen ko jàppalewut yéen a ci yéen a ci gën a torox am na koo xam ne yàlla teral ko ba noppi gey Marius Sagna amna torox lo xam du fa torox li ngeen ag yeen du fa àgg mukk man ma len ko wax du fa mos a àgg bon yéen euh, manam gis ngeen gis ngeen euh, mbirum mbirum euh, Macky Sall ak Sénégal tiajay tiajay rikoy bu ëllëgee bo woté té del wax wala la réalité Macky Sall kenn xex so askan wala ngay bëgg xex so askan mais ab gouvernement kenn xex xeex ak moom wala ngay bëgg xex ak moom mais ab gouvernement mo wara éviter mo wara tek ay ay ay ay méthodes yoo xam ne kenn xex ak mom mais ku mos a xeex saw askan jële woo ca ndam defal rek nga ciy jële defal rek nga ciy jële wallaahi asim gis nga Macky Sall mii li muy def nii billaahi wallaahi bu ma doon conseiller danaa ko conseiller mu jaal wa ren yoon wut di torturer nit ñi ak di génne armée bi ci loo xam ni jëru ko dama ne damaa déglu benn waay mu wax bëkk démb lu xorom mu ne ay agressé dañoo nekkoon seen koñ dafa agressé woote nañ police woote nañ police jéppal woote benn kenn ñëw mu ngi ñëw bii ci koñ bi wala politique léegi ñu wàcce fi loo xam ne xajul ci dëkk bi dégg leen jooju wax te waa ji xam ngeen ne kooku li mu wax wax na dëgg mbokk yi na maa yaakaar naa ne gëj na maa def benn bés ma def ci ñaari laay mais lii laa leen woon dana leen ko indi ngeen xam ne Macky Sall ak gouvernement am na dëkk yoo xam ne bu fay dem bu ñu ko défendre du fa jaar Touba googee bu sëñ bi doon ceel du fa jaar parce que ba mu jaaree ba mu jógee Daara Jolof jaar fa rek dégg gis ngeen la fa xewoon te guddi la woon de kenn yeewut nit ñi kenn ku nekk sa conscience moo lay yee xam ne yow mi li ngay dund du dëgg kenn ku nekk sa conscience moom lay yee gis ngeen Sénégal li ngeen di dund du dëgg de yéen yéen a ko nangul seen bopp rek ba fas yéene fas yéene dee mais li ngeen di dund nit daa war am droit am ndox mu baax mu sell am am am teel yu baax am hôpital yu baax ku feebar mën a faju kenn du la laaj dara loo bëgg mu yomb le village au plus riche boo fa demee am fa la ngay am ca capital ba mais loolu kañ ngeen fay àgg yaakaaruma ne da ngeen fa àgg bon léegi nag ah maanaam lii laa ne woon danaa ko indi ngeen xam ne daal Macky Sall ak ak gouvernement yii war nañoo xoolaat seen bopp partager le maximum wax nga dëgg de partager le maximum Babacar dinañ ma ne gis ngeen man li may wax toujours histoire m'a donné raison ci topp leen ko topp leen sama laaj dem leen ci sama page Facebook ñaari at ak lu tegal maa ngi laaj te mosuma wax loo xam ne nii histoire joxu ma ca dëgg dama ne gis nga gis nga euh, Macky Sall amatul légitimité boo xam ni may na ko mu jiite Sénégal. parce que bu fekkente ne yow sey directeur mënoo leen a def lo ñi def mënoo leen a dindi lo ñi dindi sey so askan bo gëna a ñoo ñoom humilier ah mais lan la lan mo fi dess lan mo fi dess ci ci ci dignité amatu bi dignité amatu bi mo waxat ko parce que yow as da nga am problème problème bi moy problème tawhid nga am ni ñi gëmee yalla xam nga bu fekke yaangi naan Macky Sall yalla ko fi tek mais ku fi yàlla tegul amut ñun ñii di wax ne Macky Sall baaxut yàllaa ñu fi teg te yow boo fekkee ab jullit nga yaakaar naa si tur wi yaakaar naa ab jullit nga da gis ci aaya alxuraan fu yàlla waxee ne bépp buur bu ma teg wala président bu ma teg même bu doon sàcc pétrole bi di ko jaay it jàppale leen ko maa ko fa teg da nga koo gis da gis ci alxuraan fu yàlla ne teguma fa firaaw na da ngaa gis ci alxuraan dictateur yi nga xamante ne bii rey nañ ak King Léopard bi rey 10 millions congolais da ngaa yaakaar ne Belgique gam cosaanoo yàlla tegu ko fa bàyyi leen affaire yooyu ngeen di wax yooyu nekk ci suñu kër gi wax naa leen ak janax yeeg kaña yi yàllaa leen fi teg mais yàlla bu la fi tegee da am ay responsabilité en tant doomu aadama dangeen ngeen di indi argument ñun liñ fiy wax nekkul ay projet cinq milliards bu ñu détourné xam nañu université Amadou Mokhtar Mbow taxawut université Sine Saloum taxawut hôpitalu Touba taxawut yooyu ñuy wax yépp ñu teg xeer yooyu waxuñ ko dañuy wax ci suñu pétrole bi ak gaz bi dañ koo def noo xamante ne bii neexut ñu te yow doon wax da ngeen a yaakaar na fi ne gënt la ñuy nekk Abdou Mbow Abdou mbay mii génn tey di wax ne Petro Asia bi nga xamante ne bii moo ne moo moom Petro-Tim ñu ne moo moom Petro-Tim te Petro-Tim rakki Macky Sall moo ko kere Petro Asia amul capital lu dul 5 millions nga xam ne ñu bari ci panel bii am nañ ko ñu jox ko sunu pétrole bii bologu Kayaar rek Saint-Louis ñu jël 90 pour cent yi jaay ci Cosmos Énergie xaalis bu dul jeex xaalis bu dul jeex te Sénégal gisu ci dërëm loolu moo ñu intéressé loolu dafa concerné suñuy doom ak suñuy sët nekkuñ fi pour ay dix mille francs wala bokk ci ay APR seen section ki seen coordination yooyu nekk ci tuubaak nekk ci Kaolack ak yooyu yooyu tax ñoo jóg askan wi moo ñu tax a jóg dañ ne Macky sàll dafa def loo xamante ne bii yéen da ngeen xamul dayoo ba ni mu toll bu fekkee ne xamu leen ko dangeen di noppi ñun ñu ko xam ñu waxal leen ko Abdou Mbaye lii mu wax ñëpp wax nañ ko fi ñépp wax nañ ko fi ñun loolu lañ ko wax ngeen ne dañuy politique mais man ngeen a gis yéen pétrole boo xamante ne bii décret bi ko signé IGE wax na président de la république na ko bul ko signé mu signé ko ba pare jox ko ndeyam euh, dégg nga maam ku mbokkal ndey ak mu jël ay milliards jaay ko ay pelent moo leen di xaar ñetti plainte benn nga Washington maa la koy wax benn pelent ci gouvernement Macky Sall affaire pétrole bi benn nga Washington moo tax Aliou Sall dem Amérique États-Unis benn nga bi nga xam ne mooy bu Australie VAR bi ñuy wax VAR. boo ko xamul ñoom ñoo doon gis mbirum Sénégal boobu ñoo trouvé pétrole bi transaction yañ doon def ña ngi ko defee ci bourse bu Australie benn nga Londres ci plainte yi ñetti plainte Sonko wax na leen fii inspecteur la boo xamante ni bi impôt la nekkoon cadre la nee na ay américain ñëw nañ fii xam nga lu tax américain ñëw Cosmos Energy mi ñuy jaay affaire bi ay américain lañu te plainte dafa dem Amérique ñaari inspecteur ñëw nañ fii interview konko euh, kii nu ñu ko waxee sax xaw ma Sonko la xaw ma damay jum ci tur yi Ousmane Sonko mu expliqué leen ñu ne ko andil yeneen document yu ko mu ne jox nag document yooyu yoo xamante ne bii da ko war a fournir jox wax na ko mi ngi nii boo demee ci YouTube bi gis ko procureur bu dëkk Amérique ñëw na fii ba dakaar ñëw ci seen ambassade bi téléphoné Sonko ne ko kaay mu wax ci mbirum pétrole boobu mu bind ko kooku Macky Sall daf ciy dem prison affaire bi du affaire wu ay projet yu ndaw ak ay cinq milliards ku la xam na ne yéen defu leen fi dara duñ fi nekk ak yéen di wax ay carte d'identité yi ngeen def cinquante deux milliards ay université euh, Amadou Mokhtar Mbow boo xam ne def ngeen ci nangami milliards te birig nekku fa hôpital bu ngeen teg Touba aw xeer te ba booba léegi ay senga fa nekk ma ngay naaw yooyu taxu ñoo jóg xam nga li ñu tax a jóg Sénégal a ñu tax a jóg affaire yàlla nag da ci am problème affaire yàlla mooy tawhid fi ne ñii taxaw man ñii taxaw di wax ñun ñii yàlla programme woon na ma Macky Sall dana def nangami bu ñu demee ba nangami at dana am lu mu def ci alali Sénégal man mii taxaw di wax nii danaa taxaw di ko nekk fii ci panel bi di wax di contre Macky Sall bàyyil affaire yàlla yooyu nga ñuy wax yàlla ñëpp ku gëm ku fi nekk yàllaa la fi teg ñun ñi taxaw di wax Macky Sall jëf ju ñaaw ji mu def ci réew mi dañuy xam ne yàlla moo ñu fi teg da nga ñu koy nangul nangul ko suñu borom nga xam ne lépp moo ko moom te ba ñoo waxal yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg. yow da ngaa yaakaar ne tubaab yi sax sëñ bi nee na yàllaa ko nattu bi da nga maam yàllaa ko jaarale seen loxo kon yàllaa fi tegoon tubaab yi bàyyil sa affaire yooyu ngay wax te andi argument dañ ne la Abdou mbay li mu wax yow noo ko gisee nan nga gisee loolu nii président bi def jël armée beeg gendarme yeeg police yi jàpp Sénégal yëpp plus de deux cent personnes RFI wax na ko démb jàpp leaderu politique yëpp di jàpp Al Jazeera wane ko biig Sénégal yëpp daram di yàqu mosoo gis Sénégal mais loolu da ngeen ci wax te bàyyi ñu ay affaire financement bu ñëw Touba ay Pathé Diakhaté oto yi muy jox